gën noo gàtt noo tawféexi tubtu tawbatan nasuha wajal lisaani fi rida fasiha assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu mbokk leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ci jiital kilifa yi di bég lool ci jataay bi di nuyu njabootuk sëriñ Bakke Kànne gépp di ci jiital kilifa gi sëriñ Mouhamadul Fadel waaye di ndokkeel bu baax njabootuk sëriñ Mor Soxna Bousso yi ñu dara jaale bis bi di ko teg ci loxol sëriñ Sàmme Majanoon mu àgg ci bokk yépp góor ñi jigéen ñi xam naa li li wolof daan léebu te muy lu ñuy yaatal daale bu naan daaray daaray lëg daaray lëg kenn du fa jaay gudd nopp loolu buñ ko buñ ko yaatalee mooy barab bu ne rekk la fa ràññi ko ku ko fa yóbbu rek ca gannaaw ñooña ngay topp daaray mbusoo bi nag ku ne xam ne na xam-xam xam-xam moo fi ràññi ko kon kuñ woo ci wàllu xam-xam dangay xam ne organisation la rek waaye mënoo leen a wax lu ñu xamut te yow mi ñëw it boo dégloo mën nga fee déggloo xamutoon waaye pexe amut kon ñoo ngi ndokkeel sëti sëriñ ba sëriñ Masamba Kanni yépp di ko teg ci loxol sëñ Abdou Lahad Maram mi nga xam ne moom lanu doon jokkool mu joxoon ñu temub ni ko sëriñ Ahmadul Muxtaar waxee anam anam gi sëriñ bu mag bi daa yare daa tërbiya sëriñ Tuubaa anam gi mu daa tërbiya day ñaari anam gu nëb gu feeñ ñépp xam ko ak bu gu nëbbu nag kenn xamut daana jaarale taalibe bi fu kenn xamut ni mu ko waxale boppam nee na taalibe bi sóobu ci samay loxo danaa ko defaree danaa leeraleb xolom ci ñaar ci lu ñu xam lu feeñ ak lu ñu lëm uniiru qalba saaliki bi zaahirin wa mubhami loolu moo tax murit yi naqare naqare lijjanti ndax yoon woowu nga xam ne kenn xamul yoonu lu mu doon kon ku ne xam na ne saa xiis rek lañ mën a waxtaane yoon wi sëñ Tuubaa daa jaaral taalibe yi ci yoon wu leer muy tërbiya arruhiya tërbiya mooy lan mooy setal nit ki ba mu set wicc ci ayibi biir yeeg ayibi biti yi ab xol faw tàggat ko tàggat ay ciir xol bi buñ ko tàggatut suñ boroom nee na ca alquran mën naa waw ba gën a waw aw doj fa hiya kal xijaarati aw ashaddu qaswa cër yi nee na buñ ko tàggatut mën naa mën a màmm ba gën a mën a màmm ak jur in humu illa kal an'aami bal humu adal kon tërbiya munta ñàkk tërbiya xol bi tërbiya cër yi sëñ Tuubaa ñaar yooyu la daa boole moo tax sañ Bakki bu sa ca way wa mu ne rabbaa quluubanaa wa ajsaamanaa dafa tàggat sunuy xol tàggat suñuy sunuy sunuy yaram kon loolu munta ñàkk bu ko defee nag loolu la muy indi mooy sab xol ak sab cër yépp jëm ci ragal yàlla ak topp yàlla wajdib quluubana ma al jawaarixi lil birri wa taqwa bi jaahi naasixi ay bi bii rek biti sunu borom ne na wa daru zaahiril ismi wa baatina na it qul innama xarama rabbi alfaxisha ma dahara minha wa ma batan ayibi biti moom ñëpp xam nañ ko mooy cër yi mooy yàlla yi cër yi def ayibi baatin yi nag mooy li sëñ bay jaxate waxoon ca xol ba lay nëbboo ko buuf mooy sikki xol yi rëy njistal naw sa bopp bëgg daraja gaaw a mer kañaan ak mboolem sikk yooyu nga xam ne sikki xol la dañuy tër bi xol ba yépp jeex tërbiyee yaram yi ba mu jëm ci topp yàlla boo ko defee nag la cay topp mooy borom day takkaayoo ngëneer yi ak makaarimul axlaaq boo demee ci xasid ak matlabul fawzayni am na wenn bayit wu ca boole loolu ñaar yooyu wa xalliyanniya min arradaili wa kun mujammiliya bil fadaili tërbiya ngoog loolu mooy loolu mooy tërbiya mu am solo lool tërbiya doomu aadama day mel ne xam-xam sax li muy am am solo buñ ko tànnaloo woon mu am xam-xam am ci lu yaatu te du ànd akub yar du ànd ak tërbiya lay gën mooy mu tànn tërbiya donte lu néew lay am ci xam-xam xam-xam bu bari bu ànd takub yar ak tërbiya meññetum xam-xam ma du feeñ barkeb xam-xam du fa am te coono rek lay jural borom daanaka moo ëpp xatar sax moo ëpp danger ab jaahil fa kasratul bi gayri adabi jaalibatun ila al ada wa taabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jiitu ci tërbiya dafa tërbiya woon saxaaba yi taxaw ca ngën ji taxaw ba loolu jeexiital ci ñoom lool saxaaba yi kuy mucc ci xeeti ayib bi biir ak ayib biti ñoo ca feete kaw kuy takkaayoo jikko yu baax ñoo ca feete kaw seen meññatum tërbiya moom sëñ Tuubaa mi ngi koy leeral mi ngi indi jikko saxaaba yi di wane résultat bi yonent bi def ci ñoom mi ngi naan ñoom dañoo saxaloon ak laabiir te duñu xëccoo duñu ŋaayoo ndax dañoo moomoon seen bakkan am na yoo xam ne nit ki bu notee bakkanam rek mën na caa mucc moo tax mu ne fa athbatu nusxa bila shiqaaqi iz malaku nufuusa bistirqaaqi nee na saxaaba yi seen alal yëpp dañ ko nangoon a jël dépensé ko ci yoonu yàlla te duñ ko def ngir bëti nit ñi duñ ko def ci ñàkk koo gëm li ñu wax nifaaq lépp dañ koy def ngir yàlla fa atlafu l amwaala bil infaaqi bila riyaa innaasi wan nifaaqi nee na saxaaba yi li indi loolu mooy dañoo doyloo woon yàlla xam na la na fa yàlla du jeex te yàlla nee na wa ma anfaqtu min cheyin fa huwa yuxlifu moo tax mu ne wa wathiqu binnaafici l arzaqi tawakkulan alayhi fi l arzaqi sëñ Tuubaa saxaaba yooyu dañoo boyoon dëkk mël ba wujju allaaxira wi di àdduna sax dañ koo fase woon seen yoon nekku ci kaanu ilal uxraada bi intilaaqi id waajahu darrata bi talaaqi mu ne am tiit wala ak ñàkk musta saalit loo saxaaba yi ba du leen tee jëm ca ndigalul yàlla buñ leen ne yéefar yaa ngi ñëw waaj leen ñi ngi leen di song du leen yëngal alladina qaala lahum nnaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fa zaadahumu imaanan wa qaalu xasbuna allah wa niamal moom lañ amoon kon lam yatruku li duxurin aw jëm ca yoonu yàlla bal sabatu fi l amri bil asu bil ashwaaqi lam ayna al aswaaqi nee bu neex du leen soxlaal ba du tee ndigalul yàlla bu ñëwee ñu jëm ca fu xare fuñ nekkee ca marché ba di jaay lu mu neex neex bu xare taxawee ñu wekku seenu jees dem ca xare ba bu ñu wootee ca jàkka ja ñu bàyyi li ñuy def lépp dem bu ji ca jàkka ja alayhim ridwanullah meññatum yar boobu la yonante bi defoon ci saxaaba yi ba yonante bi demee nag sëñ Tuba dafa wuute yonante bi ca loola di yare ni yonante bi daa yare antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fama fil jiili charwaaka sëñ Masamba Kanni boo demee ci xasida ga ma ngi ko fay leeral mi ngi dëggal wax jooju wana ne ba yonent bi delloo ci boroomam sëñ Tuubaa ko wuuti ci nun di def la mu daa def na mu daa tërbiya saxaaba yi rek mu koy tërbiya murit yi wa baadama gaaba ila albaaqi alqadim xaalafahu fiina xabibuhu alxadim wa amila alxadimu billadi amal bihi nabiyu almustafa xayru rusul loolu mooy ne la yonent bi nekkoon rek ca la yoon wa yaram yonant bi jaarale woon saxaaba yi ci la sëñ Tuubaa jaarale murit yi moo tax mu leen daa wax ñooy seeni baay ci diine ñooy seeni baay ci diine ngir rek seeni yitte kawe ay seekal ñoo dox diggante saxaaba yi ak murit yi waaye dafa jël ñu ñëpp na leen saxaaba yi ñooy seeni baay ci diine loolu mooy yitte ju kawe yar nag ki yar fawu jëmmam moo cay jiitu ba noppi nit ki la xakim ba faaqidu shay la yontahi loo mënoo koo joxe kon yar nit ki moo cay jiitu moo tax gis nga sëñ Bàkki sa ba muy melal sëñ Tuubaa mahibun mu ne ku raglu woon ku ragal yàlla gi nekk ci moom loolu la sëñ Tuubaa wax ci yonante bi murabban la wax soog na murabbin rasulun nabi yonante bi melaw jëmmam moo jiitu woon ci anama yarinam gis nga sayyiduna Hanzala radiyallahu anhu Seydina Abubakar daa dajeeg moom muy jooy jooy yu metti mu ne ko lu xew mu ne ko naafaqa Hanzala Hanzala naafaq la ndax damaa gis bu ma toogee ci yonante bi mu ñuy waar la muy wax day dugg ci noonu ba day mel na ñu ngi janoog li muy wax xaal bu kaay boobu la ñuy amee te fu ñu delloo na fu ñu fa jógee nekkaat ci soxna yeeg marché yi dellu fa ñu nekkoon Seydina Abubakar jàpp ci loxoom ne ko nañ dem ba ca yonante ba nga leeral ko ba mu demee ba ci yonante bi nettalee ko noonu yonante bi ne ko xaal bi ngeen di nekkee bu ngeen nekkee ci man bu ngeen ko doon wéyee da ngeen di saavoonte ak malaaka yi ci seeni yoon ak seeni jataay ba ci seeni lal kon wan na ko ne mënu leen loolu mënu leen ko kon lool la ma la jubloo wax rek mooy melawu jëmmi nit ki moo jiitu ci yaram moo tax sëñ Mbàkke bu sa ne mahibun sëñ ku tëy sëñ sëñ weg gi ko murit yi wegoon ngir melaw jëmmam doxoon na seen diggante ak lu bari masoon naa laaj sax kenn ci bëkk néegam soxna Awa Sarr soxna Awa ci bëkk néegi sëñ Tuubaa yi la bokkoon boo delloo ci irwa sëñ Mat Lamin Job Dagana mi ngi fay nettali ne dafa am bis muy yër téereb Zaadul Miiaat fi hadyi xayril ibaad nee na moo gis xuddaam bëkk néeg ya daa liggéey yonent bi ci biir këram ñuy juróom-ñeenti góor ak jenn jigéen nee na mu tolloole ko bëkk ne gi sëñ Tuubaa yi ci kër gi ñuy même lim booba juróom-ñeenti góor ak jenn jigéen mu ne jigéen ja woon ca saxaaba yi mooy mooy barakatul xabashiya ay man jigéen ji ci bëgg kër sañ Tuubaa gi mooy soxna awasaar mii kuñ wax sëriñ yuqu moo ko moo ko yoroon ci biir kër gi waaye ci bëkk néeg yi la bokkoon sëñ Tuubaa da ko masalaat ne ko awa xanaa li may wax daal leerut ndax sëñ bi dafa seetlu woon ne saa boo waxee ak nit ba nopp bu génnee di ko laajaat mu ne ko xanaa li may wax daa leerut mu ne ko mbàkke li ngay wax leer na nit ñee la ñemewut lu ko waral ragal yàlla gën a ca moom moo tax mahibun bu masaan woo taalibe yi ma am na guddi goo xam dafa liggéey ba noppi wax sëñ Malick Ndiaye ne ko wëral ma dëkk bi ku fiy kilifa rek bu subaa na ma fekk ca buntu sow ba sëñ Malick Ndiaye war dëkk bépp nga xam ne booroom mbooloo yi rek la woo bos boobu seex si waaye bañ déggee kàddoom ñu bare bari dañoo fanaan si guddi googu sëñ ma Samba daa fanaan si sëñ ma Ndumbe daa fanaan si sëñ Ñaasa Jan daa fanaan si ak yeneeni mbooloo sëñ Bay Sarr ñu baree bari dañoo fanaan si guddi te suba la leen soxla ña fanaan si wutit ku ci julli suba ñëw nga te toog nañ fa ba yoor yoor bu tàng boo ko doon nattale man nga ne onze heures wala sëñ bi soog a soog a génn yàgg nañ fa yàgg fa ba yoor yoor bu tàng ba sëñ Modou Moustapha jóg taxaw laaj sëñ Malick Ndiaye ne ko Malick ndax defewu ne dangaa jaawale fi la sëñ bi waxoon mu ne ko jaawale ko de ndax sàkkaloon na ko xàmmikaay newoon na ma buntu sow ba fa mangoya nekkoon tañ dagg ko te tame ko sëñ Manoune Sané ko de fii la daal di toogaat nas tuuti moom moo gën a jege kees gi mu dégg sëñ bi yëngu telli telli bunt yi ñëw baag si ci buntu mujj bi na kocc na asalaamaaleykum am kum tudd ci seex si nag du ma tudd turam ne kii du diwa seex bu mag la jàmbaar ci liggéey bi ñeme àddiya lool nga xam ne ku ko amoon ci sa kër moom lanaan nga ci xalaat waaye doo ci xalaat di di di ko gëdd di ko di ko jubbandi kii du diwa kooku dafa tiit ba topp fi mu nekkoon sëñ bi ne ko dallul fa nga nekkoon daa am lu ma bëgg a waxtaan ak yenn rek ne ko diw da ma maa bett lool diw wàññi leen tib yi waxtaan wi wéy loolu taxul ñoo jóg li bëgg a indi li bëgg a indi mooy tey ga nekkoon ci sëñ Tuubaa nga xam ne taalibe yi yebuñ ko woon ngir ragal yàlla ga nekkoon ca jëmm ja sëñ Bakke bu so ne dafa tëyoon ba dangay gis ñi teew ab jataayam ñépp dañuy jatt seeni loos dañuy mel ne ay lu kenn wax kenn ku ne day buuf mahibun tara julla sahu xawlahu wahum nawakisu xursun minhu wal kullu jaasimu nee na takkat du woon du woon buurub àdduna boo xam ne dafa yor nguur nga xam ne dangay ragal ne boo ko ñàkkee orma mu duma la déedéet walaysa bi sultaanin yuxaafu iqaabuhu wala jawruhu aw basuhu wal mazaalimu mu ne loo andi loolu ragal yàlla ga woon ca moom rek wala kin na ma taqwa ragal yàlla ga rek te nee na ragal yàlla dong nag mooy dignité ñu ragal yàlla ñoom dong ñooy borom dignité yi wala kin na ma taqwa huwa al izzu kulluhu fa ma tazza illa al atqiya wal akarimu sëñ Tuubaa tërbiya da cay jëkk am ndigalal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bindal na ko boppam yonante bi dafa ñëw ci man ne ma yaa ahmadu yow ahmad yaral taalibe yi kenn ko ne yar ko ca la yàlla ci moom yàlla xamal na la ci xole mbindee fi jaare ko ci man kenn ko ne wàcce ko wàcce waayam loolu laa la dénk kon ndigal loolu ko yonent bi dox kenn ko ne defal la yàlla ci moom ca ngay dégg lam daa wax ne boo leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi boo leen ma xarab xarab leen lawbe bi murid yi yamu yamunuy cër ndax kenn ku ne ndab lañ la yettal nga indi ko tolloowut ak sa morom moo tax loolu la ko yonent bi wax sëñ Tuubaa lam jëkk yare nag mooy xam xam-xam moom moo jiitu woon ci yoon wu muy jaarale taalibe yi dem ba ne warlul naa leen téere yoo xam ne dana leen jàngal lu ngeen bëgg a xam ci seen diine sëñ Tuubaa téere yi téere yi mbind ci diine rek ku ca yam te dégg ko bokk ci boroom xam-xam yi dafa def gis nga ca xas rek xuqal bu nga xam na ca lay waxe melaw ñi muy yar ma ngi cay wax ne bala nga dugg ci tàggatu ak di jiite di wan kenn aw yoon jëkk la fexe géeju ci xam-xamu sharia géeju ci xam-xamu xaqiqa bala nga cee dugg ndax dugg ca ca fekkut loola am wooru rek la lay indil ak te wooru moo lay indil texee di te loolu defe naa ñu bari teg nañ ca seen bët minha tabaxuru fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabl irtiyaadaati id irtiyaadun ma al irshadi qablahuma min jalibaati gururin ma shaqawaati boo demee ca téere ba mu bind di jaalibatul buruur nga xam dafa wax ne da ko bind ngir muy tërbiya taalibe yi leen tarqiya loolu la ca wax wax na ca téere ba ne nanga xam ne mbindeef yi seeni ko rawante nekkul ci dara lu dul xam-xam ak diine képp ku la rawee ci leneen man nga ko muñ ndax rawewu la ci lu am solo xam-xam ak diine dong nga am solo waalam bi annama tafawutul bara bil ilmi diine yakunu fasbira loolu sëñ Tuubaa wax na ko ci biirub tarbiya itam muy xamal taalibe yi gàllankoor yi ak ak kiiraay yi nga xam ne taalibe bi baaraas la yu ne ci kanamam faaw mu tëral leen jéggi leen jàlle soo ko am mën a am la muy wut ca boromam loolu mu koy xamal taalibe yi lu mel ne bànneex ak saytaane ak àdduna sëñ Tuubaa ne na nga xam ne jullit bi dëgg mooy kii wommatu jëm ci boromam waaye di ki di du ki wommatu jëm ci bànneexam loolu moo ne leen itam saytaane na ngeen xam ne li feek seen ruux yee ngi ci seen jëmm yi bu leen wóolu mukk pexeem ndax du takk ngembam li feek jaam baa ngi dund rek saytaane du takk ngembam laa tamanu makaayida saytaani qabla firaaqi ruuxi lil abdaani ma ñëw ci àdduna na leen àdduna loo ci ñàkk jërub tiit jërub jàq ndax du dara ndax àdduna yi ñu fi am ñett yi dong la yi xaraam yi lënt ak yi dagan mu ne leen yi xaraam ak dàkku rek la lay jural ak mbugal ak xañ la la ngay wut ci sa borom ak kiiraay sa diggante ak sa borom loolu dong la li xaram di indi kon amul njariñ boo ko ñàkkee da ngaa war a sant yàlla nee yi nga xam ne dañoo lënt yaraa nga doon la yaraa dong lay jur yowmal qiyaam ak musiba yi dagan nag lépp loo ca jëfandikoo te puukare dong tax wala concurrence wana ne maa ko ëppule nee na xisaab la lay jural ëllëg te yonent bi ne woon na man a xuusiba udib koo ñu xisaab rek duma la axdu xalaaliha tafaaxuran xisaab wa axduhu takasuran gadan iqaab kon nee na àdduna ñett yooyu dong na kon loo fi ñàkk jërut tiit jërut jàq ndax xamal ne ñàkkoo lu am solo Sëñ Tuubaa nag buy tërbiye taalibe yi daana leen gax ci ñiy sàmm àq yàlla boo demee ci meneen lu baaxil xadim sëñ Bachiru mi nga xam ne shahadu ayaan la moom dafa fekkee dafa bind wax ne annahu maa kaana yaqbalu fi waqti adaa'i alfaraa'idi wa wujubiha an yu'mala lahu shay'un illa ba'da al adaa'i wa suquuti alwaajib nee na waxtu julli du jot mukk Sëñ Tuubaa di nangu kenn di ko defal dara kenn di ko defal dara lu dul bu dangaa julli ba noppi nee na taalibe yi buñ mosaan nekk cib liggéey ba ñu taxawal julli kenn du yëngal dara lu dul gannaaw buñ jullee ba noppi nee na gan sax bu ñëwee wala ku xamul aadaam ca la nekk ci liggéey bi julli jiwut buñ jullee ba noppi sëñ bi day laaj fan la yamoon fañ la tolloon bi julli jotee buñ ko ko waxee lépp dañ koy yàq nee na ba kooku julli ji ba ñëw lépp bu deew sàkket dañ koy tiiri bu deew tabax dañ koy toj bu deew sang dañ koy dañ koy dajji mu teg ci wa ida kaana fi nahaya ramadana ayda bëccëgu weeru koor noonu la ca sëñ Tuubaa meloon nee na bëccëgu weeru koor ku sëñ tubaa xam ne wóoroo du la def loo dara loolu mi ngi ci biir minan sëñ Bachiru bind ko kon liggéey liggéey bi mu daan liggéeyloo taalibe yi da cee daa sàmmonteeg ñuy sàmmonteeg àq yàlla duñ ko defal dara ci te du dangaa jooxi àq yàlla ba noppi sëñ bi nag bu loolu jàllee muy yéegal seeni yitte nag jëme ci yàlla yittey taalibe yi di kërug ëllëg ak sunu borom amul leneen daray àdduna du leen tax a jóg Cheikh aadama Gaye mi jëkk a jébbalu ba mu ñëwee jaante def ko ne boo bëggee ànd ak man booy boo nga wogu won gannaaw njaboot gi won gannaaw alal dëddu àdduna rek maanaam jublu yàlla ak kërug ëllëg Cheikh Ibra Fall noonu Cheikh Ibra Fall sëñ Basiiru dane Cheikh Ibrahima nettali ne ma sëñ sëñ sëñ bi daf ko ne maa ngi lay nangul jaayante gi ci kaw jëfi ndigal ak bàyyi tere ak yéegal sa yitte jëme ci yàlla gis nga ca sëñ Masamba Kanni ca xasida ga ba mu ñëwee dafa wax ne mag ñooñu fañ jaaroo rek laa jaar ñoo ko mag tuuti waaye wana mu ne wëlbati naa sama yitte yéegal ko ci seen yitte yooyu ñoom góor yàlla yooyu te yitte yi góor yàlla yooyu nag mooy jëmmi yàlla saraftu himmati li himmati rijaal wa himmatu rijaali wajhu dil jalaal wax ju wax ju kawe la teg ca ne yéene naa ci sëñ tubaa jaare ko sëñ tubaa mi ma àndal sama lépp dig jaamu yàlla sama lépp nawaytu bil xadimi kaw na kulli ibadatan li maliki dil fadl loolu nuuroog loolu ak la sëñ tubaa waxoon ca jaalibatul maraaxib da ngay xam ne kon lan na ca moom rek la def ca ñoom kaw na kulli ibadatan li maliki sëñ bi lam waxoon mooy wajaal kulli ibadatan laka bi xeyri kalli da ngay xam ne kon jenn wax jee sëñ tubaa kon di tërbiya taalibe yi waaye da leen daa tërbiyaat seeni soppandiku yépp ñu koy dëppaleeg sunna dañuy wax ne jëf jooy jëfal yàlla ñaar yi ñooy tax mu ñu nangu ko jëmmi yàlla tax te nga dëppale koog sunna Sëñ Tuubaa loolu da ci daa tërbiya taalibe yi lu mel ne basmala wax bismillaahi da ci dàgga taalibe yi lépp loo ko mas a yëkkatil boo waxul bismillah mu ne la tegal nga teg mu ne la waxal bismillah soo yëkkati am na ko ko ma a andi lu ñam teg ko xamul aadam waxul bismillah mu ne ko yëkkatil du ngeen dañ di ma indil ñam yi nga xam ne ñoo ngi médd ñoo ngi médd laay amale nan man luñ ma tegal tey waxuñ ca bismillah moo médd a yem ci man nday jooru itam noonu yonente bi dafa fonkoon nday joor yor say soxna Aïcha nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu tayamuna fi sha'nihi kulli léppam da ca da ca da ca daa ak nday jooru sëñ Bachir nee na ci minanul baaxil xadim ku ñu wax sëñ Mouhamad Fall dafa maa mas a yóbbante àddee ci sëñ Tuubaa mu ne boo mbubb yi ñuy sol poche yi day féete wetu càmmoñ nee na ma génne ko sama wetu càmmoñ nee na mu xool ma gëdd ma ne ma ndox noonu la nee na ma gaaw wëlbati ko jaar la ko sama wetu ndeyjoor daal di xam ne sama tërbiya la ma ca dese moo ëpp la ma ca amagun kon tërbiya gi sëñ Tuubaa doon la ko daa noonu la ci daa taalibe yi sëñ mat la mi nee ci irwaa nag fa bi bihim ala minhaji riyaada na mu dal di wéeg ñoom nag ci tàggatu nag tàggatu yoonu tërbiya tàggatu mënu ca ñàkk lu mel ne di leen xiifal ak di leen liggéeyoo liggéey yu bari di leen jox ay dog ci turu yàlla ak ci xasaayid yi alquran moo jiite woon ci lépp di leen digg tarbiya ci beru nag ñu nangoo beru mooy garam palaas yi rawatina jataay jataay jigéen ñi loolu lépp sëñ Tuubaa nee na daana ca tarbiya taalibe yi sëñ Mat Lamin alquran moo ca jiitu woon alquran moom da leen a waxoon ne téere bu tedd la boo xam ne kenn du sàmmonteeg woon lu dul bu lam bëgg ca yàlla dana ko am kitaabun azizun laa yuraaxihi aabidun wa yatluhu illa waxta walfatxa walqurba teg ca teg ca na leen bépp jaam buy jaamoo yàlla ci alquran te di ko jàng dana amuk texe dana mucc li ñuy wax mucc ak xéewal sëñ Tuubaa na ci alquran la gën a gaawee fa tuuba li abdin yaabudu llaha rabbahu bi tartili quranin azimin yaqi karba nee nag man xam naa ci dara ndax sama njàqare ci alxuraan la dañee ba ma jàppee alxuraan la sama njàqare dañ ci lay gindi ko man ci lay gindee ña ànd ak man bihi saala xammi xiina amsaktuhu hudan sa ahdi bihi nafsi wa ahdi bihi sahba kon alxuraan sëñ Tuubaa daana ca tërbiya taalibe yi waaye werd werd di ko jaamoo yàlla daana ca tërbiya taalibe yi gannaaw werdu boppam bii di maaxuus nga xam ne daf ne woon man moom jëfandikoo na ko diggal na képp ku aju ci moom góor ak jigéen la waxoon al mutaalliqiina wal mutaalliqaat diggal naa leen ñu koy jëfandikoo seen diirug dund loolu mooy al werdul maaxuus waaye mboolem awraat yi itam noonu la ca meloon nee na sunu boroom ci jaare ko ci yonente beeg borom wirde ya da koo joxoon digal ci mu sañ ci wirde yi la ca seeni borom sañ moo tax am na ci murit ñoo xam na yeneen i lañ yor muy soññ murit yi naa leen niti yàlla ya seen wird niñ daa moytoo jëllal ko mooy niñ daa moytoo regg ci lu lew ndax lam leen mën a jural ci musiba noonu lañ ko daa moytoo kaanu yaudduuna tarkal wirdi ma shiba'in min alxadaadi min asbaabi almusibati moo tax sëñ tubaa soññee lool ci wirde sëñ tubaa daana tërbiya ci mbindam mbindam mbindi yii mu bind ci wàllu xam-xam gis nga jaalibatul buruur dafa ne nazamaha tarbiyatan wa tarqiya liman taallaqu bihi wa tasfiya da ko way ngir mu tërbiyal taaribe yi tarqiya leen lam ci indi lépp ku ko ku ko jàng jëfe ko am nga tarbiya ak sëñ tubaa waaye daana tërbiya ci xasaayid yi itam xasaayid yi gis nga jaalibatul maraqib ba mu ko joxee sëñ Balla Faali Jang daf ko ne ku ma yabalati yabalati ci yow dee ko jox mu koy jàng ngir da ko gis nga wax na ko ci biir wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalian li wajhi rabbi ku koy jàng ngir yàlla rek na ko tërbiyee gis nga muy wax ca biir wajal bihi nadmiya fawqa sawmi wa gayrihi min maaniaati lawmi yonent bi dafa na woon gone yu góor yi ku ci mën a denc soxna na denc ku ko ci mënul nay woor koor gi day dox digganteem ak bànneex ba ko mën a jëmee ci lu naqar yàlla sëñ Tuubaa nag ne mbindam mii di ko jàng moo man loola sax ci koor dox sa digganteeg yi waral yaranga loolu wax na ko ci kon daana tërbiyaa ci téere xam-xam yi waaye xasaayid yi dafa mel ne am na bayit wu leen boole ca midaadi ca mujjug midaadi hadaytu bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi ayaali bi dikri maa salaati wa bil mati xab bu jëkk mooy ay ulumu shar'iyya lam ci bind wu ñaareelu mooy xasaayit yi kon lépp anam bokkoon na ci anam yi tarbiya ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daana tarbiya ci xiifal xiifal ndax dafa ne woon fan nafsu fan nafsu bil juu'i tawili tusjanu wa ma laha qaydun siwahu yu'lanu nee na bakkan moom xiifu mett rek nga ko mën a tëje mooy kaso bi nga ko mën a tëje ba du génn ngànnaayam yam la mën a alage mooy regg boo raggee rek bakkan man la man sañ bay jaxata nee na góor yàlla yi bokk na ci ndombay tànk yañ daa lañ ko daa wute céeri ndombay tànk yàlla yi bokk na ci yañ ko daa wute ñett yi nelaw tuuti mos tuuti wax tuuti yii la mbër yëpp daa def ba ca ndomba ya ku dey ku duy biiram ndox ako ñam nelaw ba man dee lu muy deeti woo teg tasawuf wan na ne kon loolu bokkut ci tasawuf lekk ba sab kolluy saxaar nga tëdd ci lal ba fajar jóg di wëri dal la ko wër lii kay do yoonu waa tasuf loolu loolu suñ bay jaxate wax na ko sëñ Tuubaa daana tërbiya ci xitma nag ma am na loo xam ne làmp sa poos mën na koo maye waaye am na loo xam ne wettewu ñaq doo nga koy maye saxaaba yi xare yañ daa xare ñoo daa génn ci seen seen poos luñ waajal xare yi buñ noppee wekkee suur seeni jaas yi dem jaayi seen bakkan moo tax sëñ bi ma boobu tax na biir kër gi lu masaan soxla rek tàggat na ci dongo yi ku mën métier mooma ba du ko jegaane fenn lépp lu banta di defar ab lal néeg bu soxlay bant gaal lu mën a doon tàggat na ci taalibe yi koo xam ne métier menuisier mën na ko bu lu ca sëñ Tuubaa soxla mën na koo defar weñ noonu der noonu loolu sëñ Tuubaa ca tàggatoon bindee fi waaye lépp nag li ma wax léegi liggéey liggéeyal sëñ Tuubaa li muy màgg-màgg daawut nangu ñu boole ko waxtu yàlla dafa mel ne dafa leen daa wax ne lépp loo nekk lu mu baax baax bu julli jotee loolu baaxatut loolu la leen daa gàcce loolu te liggéeyal ko gis nga ni mu ni mu ni mu kawee moom ci boppam daana wax ne ba mënoon a def jëmmam ñaar jenn ji liggéeyal jenn ji dana ko def ngir ngëneel li na ci liggéeyal ko ànd ak loolu lépp daawul nangu di ko liggéeyal te waxtu yàlla jot te jooxi wa àq yàlla ba noppi